رسول الله الحمد لله مما سلمتي محمد رسول الله jërëjëf maam Bamba jërëjëf maam Bamba jëfe maam Bamba Xaadimu Rasuul kon kay buur boobee jar na ko ñu dëkke jërëjëfe maam Bamba alhamdulillah Muhammadu Rasuul jërëjëfe maam Bamba Xaadimu Rasuul ana ku siggil lislaam Rasuul ana teral der bu ñuul Xaadimu Rasuul kon kay sang boobe yeyo na ñu dëkke jërëjëfe maam Bamba rasulillah jërëjëf maam Bamba xaadim rasul jërëjëf maam Bamba ana ku sigil teral der bu ñuul sang boobe yayoon na ñu dëkke jërëjëfe maam Bamba dëkke jërëjëfe maam Bamba Pape Bassirou Diop mooy ñëw ci alxames bi ginnaaw bi président bi Seck ñëwee àllarba ñëpp woo nañ ma aussi ci ñoom ñeneen ñi aussi ñi ko ñi nga mënoon jot ñëpp jot nañ ma ñooñu ñëpp maa ngi bokk ak ñoom ngërëm bi déen wax nag nii xaw ma li suñ waaye li suñ kanam

wala ma def la loo xam ne ñagas na ci yow bu ma ko yëgee bu ma ko yëgul maa ngi lay jégul li suñu kanam nag comme yàlla suñu borom moo jël doomu aadamaam yi teg leen ci kaw ndax dafa jël boppam def ci ñoom waaw dafa jël boppam def ci ñoom sama cousine boobu di Ndeye Diakhaté bu faatoo bu ñu ko tëraloon fii bu Malick Gueye ñëwee waaw ne ay Ndeye Diakhaté ñu ñuy tëdd xam nga kenn ko wet waaye bu soñaam bu mais ñëwee ne ay Ndeye Diakhaté jóge na fi keneen du ko wet da ngay loolu rek sëñ bi mi ngi nii dëgg la jóge na fi dëgg la ci même bërëb bi ci même moment bi lu tax lu fi ne ak lu fi jóg la fi jóg mooy la doon yàlla ci moom loolu doon yàlla ci moom ñenn ñi moom la ñu tuddee âme wala roue ñenn ñi esprit ñenn ñi du intelligence mooy li nekk ci nit ki te mu wóor la ne mi te doo ko teg bët te mu koy conduire ku mënte weddi loolu mënoo weddi yàlla ndax mi ngi doo ko teg bët te mooy conduire kon mas naa di laaj kilifa bi ci wàllu sellal. mu ne ma am maa jëmmi sellal moom du lu tax ñu di ko raxas ndax mënoo raxas ba du tee bu ñëwaat kon raxas du sellal sellal mi ngi nekk ci ni ngay sellal sa digganteeg sa borom mu ne te sellal sa digganteeg sa borom mi ngi nekk ci ni ngay sellal sa digganteeg doomu aadama ñun li ngeen moom li ngeen moom te di ko dajale ci ay jafe-jafe. ci condition yu metti ngir dëkk bi mën a set ngir dëkk bi mën a neer ngir dëkk bi mën a doon dëkk bu neex a dëkkee ngir dëkk bi doon dëkk boo xamante ne am relation ak yeneen dëkk comme ni fi canadiens yi nekkee ay français di fi ñëw ñeneen di fi ñëw waa Thaïlande di fi ñëw ñeneen di fi dëkk dëkk boo xam ne kenn dootul bàyyee xale. muy traîner ci mbedd bi ba 22h jëm 1h du matin ndax kenn du bëgg a bàyyi sa doom muy nekk ay buntu ay restaurant di nekk ci ay buntu baar ay buntu leneen amul fukki at kenn du bàyyi sa doom ko kenn ku ci nekk jàpp ne jiw sama sama doom la bu la ñu ko tabax nit ñi di ñàkk di dajale loolu la ñuy dajale ñun suñ leen ko yokkul duñ ko wàññi. ndax loolu di jóge ñoom. lekk ko riba billahi wallahi wa kon yéene bi nu am yéene bi nu am tey ñaan sunu kilifa yi ñaanal nu ba kii maye may nu mooy ba am kattanu maanaam dëkk boo mën a gis ci àdduna bi ñu di ko naw ñu am fii lu ko bi ñuy ñibbi si démb ci avion bi dafa am image buy génn ko def naa New York la soxna see ko ubbi woon ma ne gis nga lii nii mu ne am ah, ma ne ko bëgg naa Cees dàq loolu mooy suñu yéene yàlla na ñu yàlla may kattanu ñu gën di joxante loxo fexe ba kenn du mën a dox suñu diggante fexe ba daje yi ñuy am yépp mu doon daje yoo xam ne suñuy waxtaan dañuy waxtaane lu ñu jëmale kanam ñun waa Thiès ak waa Sénégal leer na ma ni bëri na ñu sëq tànk ñëw fii di xaar ma wax ci wii ak non du bis bi du waxtu wi man sama non démb la woon sama wii démb la woon. l'été. je parle en parabole. yàlla xam na ay dëgg la. buñ ca tolloo buñ ca yeggee lañ ca war a wax pour fàttali ñi fàtte. Ah, waaw luñ ca war a wax dinañ ko ci wax. waaye tey dañu bëgg ñëpp ah, ba tax na ñi nga xam ne ñoo fi yëkkati yëpp barkeelu fi foog ñu gërëm leen. waaw. ndax doomu aadama yi fi daje toog sedd na yàgg na guddi na toogaay metti na mais li leen fi bàyyi loolu lu ko jar la kon sëñ Xaadim borom daa am tam yàlla nañ fi yàgg te wér ah xam naa ne xam naa ne su ma gërëmee te gëmal gërëm ma doo doyal yow ak xam naa ne mbay ngay nii du doyal ah xam naa ne rek seen xarit te ay la yow nag moo fa teewal te yombul nag te métti na te yenn saa yi dama daan déconné te te te daan nangu. te daf ko nag day bu naa ni bokk na tamit ci li tax sëñ bi di sant loolu aussi ci la bokk que nee na dafa am lu mu sartonte ak moom mu demee na mu ko bëggee woon moom nee na moom itam mooy sant. kon yéen ñëpp yal nañu yàlla defal tawfeex fekk daal ñi ngi nooy fekk ñi ngi mën a xalaat fekk ñu ngi mën a wax fekk ñu ngi mën a dox fekk ñu ngi mën a jokkalante ak yeneen doomu aadama yi ñaan nañu suñu borom na ko sëñ Tuubaa ñaanee woon xam nga kon dafa ñaanoon suñu borom ne ko defal ci man feebaru ngëm bu mu wér ba abada ñun roy dañuy roy ñu dañuy ñaan mu def ci ñun ñu doon surga askan wi ba abadan. waaw di liggéeyal doomu aadama ba abadan doon bàyyi faaru askan wi ba abadan nga xam ne bu ñuy dem demee ci loolu. yàlla na baax waxtu mu doon baax fekk ak nu na fekk ñu nekkoon ci li nga xam ne neex na suñu borom da fekk mu ñu nekkoon ci loo xamante ni luy jëmale doomu aadama yi kanam